waaw kon euh, fii nga xam ne fi lan taxaw nii ci Massalikul Jinaan mooy fi nga xam ne fi la xéewal yi nga xam ne moo jëm ci ñu doon waajal bis bi ci njàngu alxuraan mi nekk ñu ngi ak sëñ Taïba Ndiaye ak euh, sëriñ Pape Fall mu bokk ci ñu yore sécurité fii ci euh, Massalikul Jinaan ngir ñu mën ñoo wax naka lan programme tey xéewal yi nga xam ne moo jëm ci jàngkat yi ak lu jëm ci ndigal li nga xam ne sëñ Mountakha jóge li sadri wa yassiri amri waxlul xoqdatam min lisaani yafqahu xawli di sant suñu borom subhanahu wa taala waaye it di julli ci bi sallallahu alayhi wasallam di jaajëfal suñu jàmbaar ja Seexul Xadim di ñaanal Cheikh uh, Mouhamadul Muntaqa mu gudd fan te wér sa liggéey bi mu bëgg a liggéeyal maam ja Seexul Xadim yàlla kàttanal ko ba mu liggéey ko ba mu bëgg a yegg ak ak njabootu sëñ Tuubaa gépp ak njabootu maam Cheikh Rafal gi waaw kon euh, sëñ Taïba Ndiaye fii ñu nekk nii mooy fi nga xam ne euh, fi la ñuy waajalee xéwal na nga yóbbu ay xéewal ca barab bañ koy defee mu mel ni fii day barab boo xam ne euh, sele ba yoonu murit lii la la murit yëpp bëgg di daje si di fi wàcce euh, ndigalu sëriñ boobu bu ko defee nag lépp lu ñu fi indi ci am ndox wala lépp lu ñuy naan fi lañ koy dajale ci jëwriñu njiitu jëwriñu sëñ Sayer Ndiaye waaye it ànd kook daayira Grande Mosquée Massalikul Jinaan waaye ànd kook daayira euh, Nuuru Daarayni Massalikul Jinaan liggéey bi ñu ànd ko mi ngi nii fi lañ koy dajalee bu nekk bu dee ndox xeerlu ñi ngi seral suñu ndox di seral suñu boisson di tax xeerlu añ yi pare ak it nit ñi li nga xam ne ay murit lañu ak jullit ñi li ñuy togg di fi indi ngir bul ko ci kër Sëñ Tuubaa yi ngir ñu séddale ko lu fi ñëw ñu leen ko dajale incha allah bu ñu noppee rek séddale tàmbale bernde nit ñi xeewlu euh, bu ñu jotee ndigal ci seriñ bi ñaan ñu yeewe ñu ba beneen jamono waaye it dañ koy ànd ak it ci njiital jëwriñ El Hadji yu Fay moom mi nga xam ne moo fi nekkal sëriñ bi ak mi nga xam ne mooy bras droit Mbackiou Faye nga xam ne ndigal lu jóge ci sëñ Mbackiou Faye rek mu yeggalee ko ci ñun ñun ñi nga xam ne ñooy tuut tànki barab bi ak it euh, mbokk taali bi ci lu jëm ci wàllu xéwal yi nag xam naa ne Fallène la jamono yi xelam mu ngi ci xéwal yi dañ koy ci wàllu organisation bi ndax ci côté sécurité la nekkee xam nga mbooloo ku ko wax wax organisation yow mi féete ci côté sécurité bi nag ngeen organiser mbirum xewal gi waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu sant yàlla julliwaat ci yonent bi santaat Serigne Touba Xaadimu Rasuul di sant ki ko fi toogal Serigne Mountakha Ibnu la ñuy sant Serigne Cheikh Fall Jëmb di sant moom la yàlla dogal mu nekk ci bopp bi ni la ñu nekk di Grand Moussa Massalikul Jinaan muy jëwriñ Mbàkke mu àndal liggéey bi ñëpp ku mel ni sëñ tay bi mi waaye moom itam da cee raw kon ñoo ngi siyaare bu baax a baax a baax di leen siyaare bu baax a baax di wax ne liggéey bi moom comme niñ ko daan defee rek lañ koy defee ndax liggéey bi moom du tay lañ ko commencé kon yàgg nañ koo def ndax. moo ci war nu mu gën a laabee rek gën ànd ak ndigalu sëñ bi rek noonu lañ koy defee ginnaaw bu sëñ tay bi waxee pare nag moom amatuñ li ñuy wax loolu rek lañ ciy duggee ñu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ah jërë